Euh, sommes euh, 30 de la république parce que les euh, yi de dañu son amuñu ndox amuñu Nous amuñu dara bu ñuy dem sax ndox ça fait 4 km. fi nga xamné dañuy dem wëri ndox ndox dañuy dem déranger élèves yi dañuy dem déranger am maternité famille accouchée, il faut ñu dem jëli ndox di ñëw indi leen di leen defaru euh, hôpital bi tamit amul dara kon nag ñu ngi leen di jëfal bu baax a baax dinaa ne président de la république nañu jàppale ngir yàlla ak yónnente bi mu jàppale jigéen ñi ndaxte jigéen ñi sonn nañu sonn nañu def nañu lu ne ndax ñi mën a am robinet ci biir kër yi ñi mën a am oto yëpp en plus pompe yi setuñu setul wax dëgg yàlla seen pompe yi setul man sax xam naa ci ouvrage te pompe yi sincèrement baaxul dañuy ñaan président de la république nous jàppale ngir yàlla ak bi mu population Xosanto ndax dafa manqué ndox dafa manqué moulin maternité amul ndox amul dara trop même. ñun waa Xosanto dañu am fii problème ndox ñun suñu nous ak suñu doom yi nous teel 4 heures du matin pour ñëw pompe pour nga génne fofu ndox da ngay def presque 30 minutes do meuna am ndox ndox bi bu génnee tamit dafa konko konko bi lan mo koy def weñ bi nek ci bir moy def ruwi bi ci ndox bi donc vraiment ñu ngi ñaan président de la république mu dimbal ñu pour ñun Xosanto ñu am fi château bu ñu amé château vraiment lolu mo ñu arranger parce que ñun suñu jigen ñu nekk fii jigéen bu ëmb bu commencé pompe li rek bir bi day yàqu am lolu lu bari am lolu fi lu bari

Euh, jeli ci ndox donc parfois dañuy ça day dérange parce que heure cours yi bëgguñu kenn euh, euh, ku bokkul ci éducation ñëw ci heure heure cours yi ci école donc lolu donc loolu la ñuy ñax donc gouvernement bi bu mënee jox euh dëkk bi ndox euh bu mu war a donc loolu vraiment c'est à saluer Nous Kosanto le village le moy village euh, chef lieu de commune manam fi la euh, am ay mairie euh, depuis 2014 nous avons def ay pompe manuelle pour couvrir besoin population mais nous xol ni population lu muy augmenter presque suñu effort démographie bi dafa ko dafa ko anéantir à zéro le village bi 2461 habitants. habitants la effort malgré couverture bi en tout cas suñu effort vraiment mënul couvrir besoin population légui ñun luñu chef de l'État en tant que euh, élu local mu que ñu à partir programme ak projet yi comme PUDC et yenen programme yi mu construit construire un ben forage bu parce que si si chef de village euh, commune Kosanto Madame village Cosanto, 2461 habitants sans compter les étrangers donc ce rôle étranger-itamite, population normalement ça doit aller au-delà de 3000.